sénégalais la yaakaar naa comme comme sénégalais yëpp euh, te am naa yaakaar ne am naa yërmande waxuma la sax d' abord sama njaboot lay commencé yaakaar naa dina du ma dem ba Italie dafa jël jàngoro bu toll ne bii am ñëw xëpp ko sama njaboot wala bët di ko xëpp biir Sénégal loolu aw ma yéene jooju waaw loolu moom aw ma yéene jooju. bu bu déggee comme le premier Modou Modou wala le premier sénégalais. koy naka nga koy sole non casquette boobu dafa doon casquette bu bu métti ba indil ma émission eh, xam nga nu eh, bu nga xam ne wax dëgg xaw na ma euh, jàpp lu pendant trois presque quatre jours euh, ba doo mujj eh, même si hôpital doo mujj sax man fay sama téléphone. dootuma wuyu dootuma woore parce que xawoon na ma ne li ma ci gënoon a métti nag mooy euh, sama doom bu jigéen. ñibbi si xale bi jigéen bi ko doon gunge sax tey moom tamit barki démb la génn moom mu mm, contacté na ko léegi nag euh, élèves yi doon woote di jooy di laaj naan ndax euh, Bintamar dal na ko dalu ko dalu ko sama doom la Bintamar léegi euh, loolu nag bi ñu ko wax ma xam ne élèves yooyu tey imagine tey élèves yooyu bu ñu amee jàngoro bi ñoom ñëpp jëlee ko ci Bintam. ñooy rapport ak euh, ndimbal li nga xamee ne wax nañ ne également egsi na ci ci ci ci yow ak ci sa njaboot par rapport ak euh, faj bi ngeen doon faj jàngoro ji lan nga ñu ci mën a lan nga ñu ci mën a dolli. ndimbal moom euh, ñu ngi koy dégg comme ni ko nit ñi di déggee waaye yàlla dogal nag gisaguñu ko gisaguñu ko nag mais nag ñu koy dégg parce que. gis naa ci journaux yi dégg naa ci rajo yi ñu wax ba ne euh, Serigne Mountakha euh, jox na Modou Modou bi tono ceeb ak ñeent fukki ak ñeent fukki junni ah loolu duma ko wet ndax Serigne Mountakha lu ñu jógee ni ci moom moom gëm naa ko gëm naa ko lool ah mais euh, xëy na mi ngi